salaamaaleykum waaw audio bi nag dama bëggoon ñu jottilil ma ko joor Diagne waaw euh, di ko wax ne joor sa baay daa liggéey ci réew mi lu mag a mag a mag doon kilifa wax dëgg yàlla nit ñi jox ko cër kenn xamalu ko maanaam même bu defoon lu bon nit ñi xamaluñ ko ko waaw wala boog ñi ko xam dañoo noppi joor da ngay góorgóorlu ba sa bul uññi sa sutura baay ndax uññi sa sutura baay mooy may nit ñi wax ci yow ndax nit ñi boo xeexeek ñoom ñu wax ci yow la baaxul ci yow te ñu xam ko dañ koy wax te wax dëgg yàlla nag ah xëy na euh, sa papa model la woon pour yow waaye yow xam nga ni sa papa amul fenn fu mu yax ba tudd sa yaay boo demee ci internet bi nga vérifié amul fenn fu ñu tudd sa yaay te nag bul fàtte pour ma wax la ni li ma la wax du dañ sa papa dafa jur taam bu jigéen tudde ko Marème a Kandji yaayam moom donc xam nga kooku joxoon na ko cër waaw jox cër bi nag ba cër ga ëpp ba soppeeku ah di wax ni boo fàttali ko xëy na xale nga woon waaye daan ngeen toog ca saal ba foofa ca tëngéej boo jëmee ca sotarak ya fa ñu nekk fa ci ar terminus Sotrac ba à gauche ci mbedd yooyu benn fa ngeen dëkkoon sa papa daana wàcc toog ci saal bi Marème Balla Diagne di ko bësal ay tànkam bul fàtte ni sa papa ànd naa ak Marème Balla Diagne France ñu dem vacances te jamono yooyee yow ñu wat la nel la tax ñu wat la nel bul tax mu siiw maanaam góorgóorlul góor góorgóorlu jooñ àddina euh, dafa am nga xam ne àddina jaru ko wax dëgg yàlla yow réputation boo munti am sa bos la waaye sa baay suul nañ ko mu yóbbaale lu baax lu baax la bu ko uññi bu ko uññi ndax nit ñi dañ koy wax ndax nit ñi xamal nañ la de jor lépp loo mun a fexe plan boo mun a lal ndax dafa soo munoo weddi ni yow munoo sañoo taxaw weddi ni du yow yaa bind plainte bi du yow yaa xelal ndaw si du yaa ko yóbbu du yaa ko jëli loolu moom xoolal leer na àddina li nga xamul nag mooy sa oto fa ko gaare woon am na ñu ko foto foto nañ ko de léegi nag boo gisee foto ba di nga xam ndax foofa la wala foto bu ñu foto feneen wala dañ faa gaare oto bu niroog moom yow xam nga boo tëddee xam nga sa diggante ak yàlla ni yow la joor sóob mi nga ko ba pare nag xam nga lu may ragal nga wut ko la ko naan li mu të ndax di nga dem ba bëgg wax ji noppi wax ji taxaw te du taxaw lii ma lay wax nag waxuma nga gëm ko de xippil sa bët rek di xool joor xam nga yow ñëpp xam nañ ni yàq sa jëkkër nga xam ne wax dëgg yàlla euh, Macky Sall ab kuti defu ko sax ab kuti moom lépp lu mu tële ci nguur ci ci justice mu jox ko sa jëkkër mu mu exécuté ko moom tamit nag leena neel sa jëkkër waxal sa jëkkër ni leena ndeyam jàmbaar la woon waaye nag bu mu fàtte ni ak njàngam foofa ca xombal la ko defe ah bu mu fexe nag bu ñu ko fi waxal dara da ngeen di góorgóorlu Macky Sall yow a avocat nga bàyyi sa bàyyi bàyyil na la alal ba mu doy ci nguur gu la neex yaa ngi koy nguuru sa jëkkër lu ne nekk na ko waay waay waay te gën a góorgóorlu li Macky Sall ñemewu la def bu mu leen ko defloo te xam ne lii tey bu yemee fii bu subaa bu Sénégalais yëpp àndee jóg yow da ngay daw rek génn senegal ndax dootoo fi xaj yàlla bu joxee Sonko nguur gii yow noonu ngay def jor nga boole ko nag salteel sa liggéeyu baay bépp nga sotti ci suuf nit ñi la xamuloon ñëpp xamal la joor ah doone avertiruñ la de audio bi nag yow laa ko yebal yow laa ne nañ la ko jox ndax di nga ci jot wala déet yàlla rek a xam waaye damaa bëgg nga jot audio bi ba bu subaa nga xam ne avertiroon nañ la avertir nañ la de waaw bu réew mi tàkkee tey yow yaa tax ku ci dee tey am nga ca bàkkaar léegi nag mën ngaa jàpp ne yow doo dee boo dee kenn du la layoo mais yow xam nga ne yow mi sookee lii sos ko bu réew mi tàkkee yaa ko taal ndax yaa taxaw ne mën nga koo def ñu ne la def ko nga def ko Macky Sall taxaw ne nangamtaan leen ndeyam tëj ko ci kaso bi yow nga ne buñ ko tëjee réew mi tas gis nga joor fi Sénégal la loo def sa ron lal rek jàppal ne nit ñi xam nañ ko ci mbedd mi te bés dinañ ko wax de danañ ko layee ci àddina ba pare layoo ko àllaaxira ah bu ma sañoon nag nga dal la nga lijjën la nga làqarti ba mu làqasoo nga dem làqarti ko balaa àddina balaa balaa réew mi tàkk sa kaw te ah sénégalais nga de say mbokk ngi sénégal kon nag damaa defee ne comme ni ko tubaab bi di waxee rek à bon entendeur salut Antoine nag ne ko moom it bu mu yaakaar ni il est dans une bulle de verre nekkul ci bulle de verre de fii nit ñi bu ñu fuyee ba gis nga moom ndayam da koo jur mais avant ndayam di ko jur ah <laughs> na góorgóorlu de nit ñi dañ koy waxal de te lañ koy waxal danaan weññ te du ko weddi du ko weddi ndax ndayam du ko weddi kon nag euh, soxna Dior salaamaaleykum wa rahmatulah